ñeenteelu xaaj bi ci juróom benn xaaj yi ganaaw loolu ay boroom xamxam xam jóge penku ñu laaj ana xale bi juddu ngir doon buur Israyil gis nañu biddeewam moo tax ñu ñëw ngir màggal ko bi ko buur bi Erod déggee mu laaj sëriñ yi ci mbir mi sëriñ yi ne ko yonent yi wax nañu ne almasi bi dina juddu ci Betleyem ci yude te dina jiite xeetam buur bi daldi mer lool mu wax boroom xam-xam yi ñu dem seeti xale bi te dellu si wax ko fu mu nekk boroom xam-xam yi topp biddéew bi ba àgg fa yéesu nekk ñu màggal yéesu jébbal ko ay sërcë yàlla artu leen ci gént ngir ñu bañ a dellu ci buur bi erod noonu buur bi daldi mer lool mu santaane ñu rey bépp xale bu góor bu toll ci ñaari at wala lu ko yées yàlla yónni am malaaka ngir mu yëgal yusufa ne buur bi dafa bëgg a rey yéesu noonu yusufa daw yóbbu maryaama ak yéesu ca réewu misira gannaaw ba buur bi erod deewee yusufa dellu israyil ak maryaama ak yeesu mu ngi màggee ci dëkku nasaret loolu di lu yonent yi waxoon léegi ma laaj leen juróom lan la boroom xam-xam ya def bi ñu gisee yéesu dañu ko màggal te jébbal ko ay sarica